waaw ñoo ngi ziara dañoo ngi ziara pambaalo jaa ngeen jëf soxna Degen bu jaajëf jaajëf Ousmane Pouy le 29 la le 29 à la place de l'obélisque le 29 à la place de l'obélisque ñoo ngi ziar bu baax ñoo ngi ziar bu baax xeex bi benn la xeex bi benn la Macky dafa war a dem. te lewoon la dootu am la woon wanniku le Sénégal appartient à tous les Sénégalais nelaw nelaw jeex nelaw jeex na yeewu le 29 le 29 le 29 à Dakar à la place de l'Obélisque mbagg ak mbag épaule ak épaule mel na kuy julli Macky dafa war a dem Ousmane Pouy ñoo ngi ziar bu baax a baax Macky dafa war a dem le vingt neuf le vingt neuf ci la immigré yëpp génn nag wane seen doole parce que le Sénégal ci lañ bokk Fat Sonko welcome maa ki dafa dem a fay dem sans condition amay Nesobel Sobel Fall ñongi ziar bu baax à l'âge de 22 ans qu'il a libéré le Kayor donc c'est le moment de la jeunesse une répétition c'est la notion c'est la notion pédagogique Qu'on répéter Amari Ngoone Sobel day am solo trop la répétition de l'indépendance du Kayor qui va redéfinir l'indépendance du Sénégal. Je pense que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes plus des ânes. Zéro à la colonisation. Nous sommes de vrais Sénégalais, de purs Sénégalais, des Sénégalais de sang. Un pays qui nous appartient à cœur. Nous avons le droit de riposter quand ça fait mal. Alex Mbaye ñoo ziar Alex le 29 le 29 Alex gennel xalé yi la libération la libération de notre pays la libération du Sénégal tout un Sénégalais tout un Sénégalais doit prendre ses responsabilités accepter ce devoir noble un devoir commun un devoir qui va nous acheminer vers un développement durable. Dans la dignité, tout est possible. Un peuple qui est en colère, comme disait Malcolm X, démontre des signes de rébellion, démontre des signes de révolution, démontre l'évolution, démontre les indépendances, la liberté, la tristesse. Nous ne devons pas être tristes le Sénégal nous appartient. It's time to stand up. To say no, to say no, no à cette formule diplomatique qui ronge notre pays depuis l'indépendance. Fils du Sénégal, fils du Sénégal, réveillez-vous, réveillez-vous. nelaw jeexna nelaw jeexna ñi doon dajant ba ma leen ci kaw ñi doon nelaw ñu ñu bokk di Demba welcome Awan welcome nous allons bientôt débuter Les cris de cœur rek commencer. Je vous donne rendez-vous le rendez-vous du siècle le rendez-vous du départ de la révolution le rendez-vous du jeune sénégalais debout à participer dans l'histoire dama Kougen le 29 tu feras partie de l'histoire de ce pays. De par la révolution, la France a eu son indépendance et ses libertés. Ce serait jamais, jamais possible un peuple, un but, une foi, sans la liberté des personnes, sans la liberté du peuple et des populations. Maki va quitter et il quittera. les souffrances sont multiples. Quel est le faux Les universités, 48 000 étudiants, 48 000 étudiants en dehors des écoles, les gens qui orientés. Les étudiants, les étudiants, qui ont orienté orientés. Abdou, je ne sais pas Abdou. Je ne sais pas Abdou.

Nous avons un problème interne qui ronge notre continent, qui ronge notre pays. Un Sénégal malheureux, un Sénégal qui depuis l'indépendance, le Sénégal bi sucer le bonheur Le Sénégal bi day yakar muy tass day yotu du jot te li mo wax kenn ku ci nek nga ko te xam nga ko ci famille bi famille

dafa jot ñu jël caabi ci ay loxoom seet nee na ñuy def million men marche men marche daanaka tur yi amul solo li am solo rek mooy des sénégalais Ousmane Tounkara waaw kóor ak si nga xam naa da nga dugg tuuti nga def appel ma dugal la ndax Ousmane foog ñu woote Ousmane ñun ñëpp bu ñu benn góom. defe naa noy nooy bokk nuñ koy wokendo jombu le kenn ku ci nek ak la nga xalat waye xalat ben la makki dafa war dem million marche woote na woote gi mu woote amul li diwa ko jëkkee amul li diwa ko mujjé amul diwa ci bok tous les sénégalais tous les sénégalais sont membres de million marche nous appelons le Sénégal. Nous appelons les Sénégalais, les populations, les masses populaires, les syndicats, l'université, la société civile, les rappeurs, les artistes, les artisans. Le Sénégal est un ensemble commun où tout un Sénégalais a droit d'exprimer sa volonté. jóg jot na jóg jot na nañ bokk jóg Moustapha Babou ñoo ngi ziar le 29 le 29 Moustapha soñña sama mbokki naare Kajoor yëpp nañ génn nañ génn waa Waadaan daanu génn Ndukumaan génn May génn Kër Balla ak lu ko àll boobu yëpp danañu génn Muslaaj daanu ñëw ñëpp ay dikk sëñ Babou.

nous avons un pays qui souffre un pays un pays boo xam ne kenn ku ne xam ne dara baaxu fa dara baaxu fa même jaamu fa yàlla mënoo ko parce que ab jullit mënta am beneen boroom war a jaamu yàlla c'est pas possible Million Men marche, dama ne ñëpp ci lañu ñu bokk képp ko xamné méron nga am lu la ci nakari nous ne sommes pas des professionnels c'est notre premier combat donc erreur nous cee ñàkk xale yi nga xam ne lañ ko politiciens parti politique xamuñ ci activisme dara volonté ak seen responsabilité erreur booy ba ñu ànd jubbanti ko ba ñu ñëpp ñu bokk benn direction personnellement ci membre fondateur yi ca laa bokk waaye diis yi ñu ñaan Macky Sall ñoom ban ca àndee dama topp seen ginnaaw waaye man ci Ousmane Dramé Macky Sall mooy ko dara Macky Sall zéro mayuma ko dara parce que doomu aadama

mom ngeen di wax loolu mu xalaat ci mais Macky lim gëm dof ak di doxal ay proposition mënu ci dara quand un peuple décide dafa dañoo war a jógandoo boo ma boo defal ma lii defal ma lii defal ma lii ko ku de ku ngeen koy waaye un gars qui connaît même pas le sens d'une république ngeen di jox ay avant première ak i dix parti quinze parti kooku du yàgg mukk ci àdduna ba mu respecté cette logique bi ngeen xam ne moom ngeen bëgg kon perte temps boobu ñuy def mu perte temps bu majeur bu graaw a graaw defe naa ne jógoon dem ci liggéey bi man loolu laa gëmoon mais nag comme ni ma leen ko wax boo àndee ki nit ñoom ñu ne nii la ñuy defee da ngay muñ topp ca loola képp la moo tax j'interpelle Clédor ne ko na ñew na ñepp dik fi lu ñuy xëccoo néew fi lu ñuy werante fi nous avons un problème commun bo xamné tout un Sénégalais est responsable tout Sénégalais doit prendre sa défense donc euh, ma lii laay doon ak lii laa ci bëgg do nak ak la ci bëgg loola nit waru ko xalaat sama di ko wax fu ab Sénégalais nekk dama ne ku son ay lire ay lire di réunion gàddu ay banti bale ne Macky Sall li ñuy jëlee ji pale kenn ku ne xam na ne impossible waaye war ngaa mën a jël aw yet topp ci seen ginnaaw fii xëccoo néew ci mer nekku fi li ñuy séddoo néew fi la la tradition des parti politiques maanaam culture parti politique fu gis mbooloo fu gis mbooloo dem fa te groupe bi xale yi ko yor ay taalibe lañ ay taalibe lañ seen jom mu leen maytul ñu toog bàyyi Macky Sall di ko seetaan ñu jógandoo kenn ku ne fàq ab xer taxaw kon erreur yooyu ñuy def ak yu ñàkk xorom yooyu ngeen ci seen jërul xool ànduñu ak ma sàmba ànduñu mag demba duñ ay parti politique duñ organisation dara liñ doon daal mooy ñuy ruur sunu tool kenn ku ne buddi ab xer topp ci nag yi ay mbaamanu songandoo songandoo suñ tool yi songandoo suñ ressources naturelles yi fu gone nekk na wutu yet waaye daanaka tur yi sax amu ci solo ab slogan la rek ab slogan la képp bu mën a génne nit ni waaye tout le monde est responsable Macky Sall bu leen nee lu lu masa def ko amut kaddu kaddu bu nekkul ci nit kaddu kaddu bu nekkul ci nit kooku amul diine sun maam yi bu njëkk daawun si dañ daan dan daan rek jox benn kàddu mu dal dañuy wax kàddu mu sax srip kàddu googu ca dañ daan jàpp amul signé kon kàddu moog lislaam a ànd xam naa ne danaa ko compare parce que du musulman moom c'est un franc tax franc-maçon contre-carrés. Si je suis gauche je suis droite Si je suis mu ci un type intelligent il manipule les manipuler population il faut voir le cas du Sénégal 96% de musulmans mais ils préfèrent ces populations préfèrent la culture satanique et la culture maçonnique que de prendre le euh, charia charia non koo tudd charia mu du mooyu koo tudd charia rek moom la ginnaaw parce que ñoom ñu yor diine yi ñoom ñu yor yee nit ñi saytaane muy xaalis dafa këf seenum xel ba koo ci dig dara mu soppi ab xutbaam am réew na bu demee noonu xam li ne musiba am na million men marche li ko yëkkati yëkkati ko mooy am nañ lu naqari ci réew mi te àdduna bépp xam nañ ne muñ nañ muñ nañ ndax depuis cinquante huit ba heure bii tibbub ceeb boo añee mënoo koo garanti te ëpp alal ci àdduna nga gis ay tubaab di ko def ci saret di yóbbu di ko def ci avion ak i bateau di yóbbu pendant une cinquantaine ba soixante année nga di ko gis kooku dama ne kulla muñoo dañ lay nax da ngay wax Macky Sall it nañ ko muñal at yi ko yalla jox ñun ñëpp ñoo yaakar ne judd avant les indépendances il va maîtriser ses souffrances que le peuple du survivre ñëpp yaakaarandoo ko mu yaakar ju tas jo xamné dama ku nekk ci Sénégal yëngëne ki waxuma li nitu dara waye dafa xamul sax lamay def ñu mën koo jéggal sax ci benn boor man koo jàppat ci beneen boor itam ki nga xam ne moo songoog sëñ Tuubaa dem ak moom pendant des années xamuñu fu sëñ bi dugg te jotool moom dara kii téye alaaji Malick téye ko Tiwaawan bloqué ko fa ba mu génn àdduna ñu denc ko ca dëkk ba Cheikh Omar Foutiyou yéen Sénégalais yi kenn mënul ne fii lañ ko denc Djéri Dior Ndella a été agressé abattu ak kàddu Ngoliama sa tête coupée ñu ko France Mohamed Lamine a été exécuté sauvagement Nous dag bopp beaucoup de dama le Sénégal nous appartient Son bundu gëna le 29 j'invite la police policiers bis bis bi bis. policiers yi andlé nak askan wi policiers yi jërul retraité wax vous avez le droit de voter vous avez le droit di jël ay ordre waaye nag def leen seen xel ne askan wi ñoo leen askan wi ak lu ngeen mën a def wóor na leen yeen alkaati wóor na leen ne of nak bari na ñum japp ño xamne ne ba heure bi tuddu ñu leen Karim Wade lañ ci jàpp téye ko téye bu am solo daanaka te lépp ci kaw yu combine lañ ko teg waa poste poste bi lañ fa sàcc ci alal kenn xamul lu mu toll te Macky ne noon dana ci taxaw te du dëgg Ousmane ngoom lim sàcc kenn mun leen nii nii la toll te police xam na ko Aliou Sall gis ngeen ko te moo fi noonu Aliou man duma ko nomee ci dara te lépp ay fen la Diallo bu nek impôt et domaine 92 milliards yo xamne di ci teud xol len 92 milliards 92 milliards lu ko julli di doye 92 milliards xol len 92 milliards lol région boko yobbu may ko wa mairie ba may ko wa mairie ba dama ne legui legui enseignement adulte am ci mag ji beug jangal jàngat sa daanu icon ay kon ay kon danaa dugal Euh, dama danaa danaa dugg ay ko nanga nga dellu si parce que il faut nga wax dégg ay ko na nga parce que nag euh, nun nunu nee na coow li mënta ñàkk coow li mënta ñàkk lu toll ne un pouvoir lu tol ne un gouvernement avec tous équipement bi mu yor ak kattan gi mu yor nun doon ay moodu moodu yu ne ci àll bi songandoo ko ñooñu kattan gi ñu yor kattan gi ñu yor buñ defee ay erreur erreur yooyu ci suñ biir dama ne kenn ku ne man na koo avalé te leen mu ñor leen ñorlu Macky day dem Macky day dem it taxul Macky day dem rek nu continuer daa def déedéet nous voulons un nouveau système nous voulons de nouvelles têtes lave école coloniale on n'a pas besoin d'eux dama ne ki la jàngal lam la jàngal ngay tari ki la jàngal lam la jàngal ngay tari on n'a pas besoin di une école politique école coloniale on n'a pas besoin de ces agences-là Vous, xale yi surtout ñi ci immigré yi ci vous travaillez dans les plus grandes banques vous êtes des docteurs vous enseignez dans les meilleures universités vous avez une responsabilité à combler kan boo ko jóg ngir yàlla ak yonent bi défendre cette nation bi nga xam mooy yàlla na ko jox kenn mayuñu qui kenn saraxuñu ko mais yàlla ko yëkkati jox vous avez jaamu yàlla mi ngi tàmbalee ci li yalla tek ci solo nga gëm ko li yalla tek ci solo nga fonk ko li yalla tek ci solo nga bëgg ko fi mi ne bo demon ci geej gi di tibbu ndox di sotti ci biti di tibb sotti ci suuf man nga cee deereem sawara sax te ndoxum geej mënu ko jeexal mënu ko jeexal Ousmane Tounkara defal signe après ma bàyyi la nga dugg Ousmane defal signe après ma bàyyi la nga dugg ñom ay kon ñass yeen ñëpp yu dugg Macky Sall 10 points yoy ñuko may xeyna dañ ko def rek pour yonal waaye du Macky moo koy respecté dama ne dix points yi ngeen may Macky dañ koo def rek waaye du yàgg mukk ba Macky du yàgg mukk ba Macky respecté ko benn mandat laay def benn mandat laay def Ousmane Pouy dinaa ñëw coow benn mandat laay def la wax du du sept ans dama koy réduire cinq ans àdduna bépp di la dégg àdduna bépp di la dégg nga taxaw ni leneen lay def lu bokkul la ma waxoon ay kilifa diine yu xëy di jàng alxuraan dégg la nga waxoon wañ ko ànd ci ak yow encore dama kenn xoolaat suñu bopp kenn xoolaat suñu bopp bu fekkee ni ci dëgg-dëgg bëgg nañu liggéey wala ñu bëgg jaamu yàlla réew mi ay sàcc ko yor ay sàcc ko yor Amadou Ba milliardaire la Farba Ngom nga ni coxeur coxeur Farba Ngom limi japp un commissaire de police japp ko Farba Ngom limi japp aucun professeur d'université japp ko Farba Ngom limi japp yeen policier ray sen bop ak sen sécurité Farba Ngom jappul genn wàll te limi ci gëna nakari y policier yi xam ngeen ne Farba un ab sàcc la xam ko comment Farba a traversé le Sénégal la douane avec des mallettes des mallettes d'argent jusqu'à l'arrivée à Paris ñu jàpp ko plus de cinq valises d'argent cinq saakuy xaalis Farba Ngom peese ko ànd ki nit romb douane bi romb alkaati yi dem ba Paris ñu door koo cette corruption chronique bi nga xam ne moo dëpp yaakaari xale yi cette corruption chronique bi nga xam ne tey tax ba sun mbokk yi cette corruption chronique bi moo tax nga xam xalé yi jànguñu une université bo xam ne yaakaaratuñ dara boy garé avion buntu université nu bëgg dem Amérique yéegal professeur yi lank ci avion bi et pourtant nous avons tout ce qu'il nous faut pour se développer ken bokk jokk kan delu gore tap lante ak rayante nañ ko bàyyi ousmane ousmane boo duggee mau dugal ak ousmane kan kan dëgg salum sa salum sa ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar waaye la le le vingt neuf day bis bu ab Sénégal ne war ngaa wuy war ngaa wuy c'est une révolution boo xam ne les Sénégalais de ay nit leen ñoo xam Sénégal xam nañ leen tey mu nee ba toog ba toog ba mënut noonu toog nu futti ko taw màkki war naa xam ne leer nañ màkki bu jógee màkki bu jógee neexee les députés de la diaspora pour neexal pour neexal pour corrompre te boobu ba nëri amul kenn ci yéen kenn ci yéen ku ci toog ak bi ku ci toog ak bi la diaspora mu wax la ñaari mu wax la ñaari kàddu kon millionnaire kon millionnaire mars. bu jógee. bu jógee. jógalu ma jógalu ma. jógalu la jógalu la. jógalu ma sàmm jógalu ma jógalu ma temb. dafa jóg dafa jóg tous les Sénégalais. fu ab bi Ce n'est mais une soulèvement national ce n'est pas une marche comme une cette fois-ci cette fois-ci c'est un soulèvement national soulèvement Macky Sall yi di mooy yéen koy yeeru yéen yéen da ngeen joxtaan dama tegoon ci mënuma ci dara mënuma ci dara waaye man sur le plan ak analyse yi du Macky Sall du Macky Sall di ngeen ko ba tax na man ba tax man gëm naa ne gëm naa ne Macky Macky foog askan wi génn loolu pour mu ten bàyyi parti politique luñ toroxal luñ toroxal politique la luñ parti politique la. depuis cinq les partis politiques. te te amul lu ngeen añee te amul lu ngeen añee. ku fi lekk kees ku fi lekk kees politicien la. foo kees euh, noir yi politicien yi ñi fi cambrolé baa ngi politiqueero maçon lekkagu fi maçon lekkagu fi immigré lekkagu fi immigré lekkagu fi suñu yaay yu baax yi sàcc yu baax yi sàccagul fi suñu ilimaan yi suñu ilimaan yi sàccagul xanaa ñu ne xanaa ñu ne ci jàkka yi waaye kees waaye kees koo gis rek ak politicien ko Ousmane Nara Mbaye doo woote ci marché bi après ma waaw ah, gars yi xaw ma may dégg parce que gis naa ñuy kaas son bi ah, turando yaa ngi may dégg bu baax. waaw ah, donc. ah ok donc frères yi ak sœurs yi ak. tey moom nag comme ni ko sama frère bi waxee muy sama turando muy sama frère muy sama idole dañu bëgg doomu sénégalais yëpp xam ne woote bi ñuy woote nii woote julit la woote jàmm la woote change réew la parce que xam nga neex na ñu toog ci adduna fu ñu waxee rek ñu ne diaspora bi mooy dugal mille milliards jar diaspora bi mooy dugal mille nangam milliards te diaspora bi toog fi mu toog bu ñuy jël ay décision Sénégal diaspora bi bokk ci diaspora bi du ci wax dara diaspora bi amu ci kàddu loolu la ñu bëgg dëkkal nag tey parce que li ñu li ñuy ne américain di ne enough is enough toll nañu ak foo xam ne Sénégal dañu bëgg njiitu Sénégal yi respecté ñu respecté seen askan ñu xam ne askan bi moo leen fi teg ñu xam ne askan bi moo leen fi mën a jële loolu moo tax ñuy woote di ñaan doomu sénégalais ak fépp fu mu mën a nekk ci adduna bi quel que soit nos différences déglu leen bu baax li may wax bu dee tukulóor nga njaago nga saraxole nga ak loo mën a doon quelque que soit nos différences suñu naqar yi benn la parce que tali rang bi ngay daw te mu baaxul ci tali boobu lay daw ndox mu bon bi ngay naan moom lay naan lekk bu bon bi nga xam ne moom la ñuy joxe sénégalais di ko lekk moom lay lekk hôpitaux yu bon yi moom la sama mbokk yi di fajoo donc ñuy ñaan doomu sénégalais ñun ñëpp ñu génn ñu ñu naqarlu li nga xam ne moom mooy dox Sénégal ñu ne nag comme li ko suñu frère bi waxee ngeen déglu ko bu baax ñun jóguñu pour dem régler benn problème buñ ci defee ñaar ñu delluwaat suñu ay place déedéet takk nañu suñu ay bagage bind nañu suñu ay miraas def nañu lu ñu war a def dañuy dem jàmmaarloo ak Macky Sall jàmmaarloo ak peuple sénégalais bi wax leen ne a naaf is a naaf bu dee Macky Sall moom mooy yàlla nañu ren ñun ñëpp sànni bu dee moom moom moom kaso Sénégal yi nañu tëj ñun ñëpp mu fees ñun suñu yoon nekku ci ñun li ñu tax a jóg mooy ñu dem Sénégal ñu naqarlu lii nga xam ne moom mooy dox ci réew mi new ñu kenn gàddul fetal new ñu kenn gàddul paaka new ñu kenn gàddul jaas ñun àdduna baa ngi ñuy gis yéen xam ngeen ne kenn dofut kuy ko France Amérique ak fépp foo mën a dem gouvernement yi yëpp xam nañ ne ñun ñu ngi départ fii pour ngeen xam ko ñu jóg ci suñu réew yi dem jàmmarloo ak Macky Sall bu ñu disparaître xam leen ne Macky Sall la bu ñu dee xam leen ne Macky Sall la lu dal doomu sénégalais xam leen ne Macky Sall la ñun ñëpp dañuy dem dara duñu gi ginnaaw nag parce que comme ni ñu leen ko waxee démb moom la ñuy waxaat tey man boo leen ñu dégloo depuis début bi ñu commencé même kaddu bi lañ leen di wax yàqkat yi daan nañ ne ñii duñu ñëw ci diaspora bi la ñuy toog di jaxase réew mi ci diaspora bi la ñuy toog di kii dañoo bëgg a doomu jàmbur yi rey leen dee déedéet génnewuñu kenn rey kenn ñun ñooy jiitu ñun suñu kaddu dañ ko respecté ñun duñu toog ci réseaux sociaux yi rek di ŋàññi di xas ay nit déedéet dañuy ñëw jàkkaarloo ak nit ñooñu bu dee ñoom ñooy yàlla nañu taw ñun yàlla lañu ñu gëm te yàlla la ñu ragal te gëmuñu nit kuy noot ay doomu aadama ma dellu siwaat encore ci naqarlu bi nga xam ne dama koy naqarlu xam nga toujours doomu sénégalais wala doomu aadama booy wax turandoo dañuy ne kii lu tax muy def lii kii lu tax muy def lale sii wak problème bi yéen li ngeen di lijjanti lijjanti leen ko te nekk leen ci te ngeen génn li ñuy woote mooy na doomu sénégalais yi génn a naaf is a naaf bu leen lijjanti Ousmane Tunkara bu leen lijjanti Ousmane drame bu leen lijjanti Mapaate bu leen yàq der bu leen defar der bu leen mayee xaalis bu leen tere waxuñu leen lool yëpp waxuñu leen ko lan lañ leen wax mooy ñu génn déglu suñu frère yii nekk fii ak ñeneen ak ñeneen ñi Ousmane Dramé mii tey li ngeen ci xamul lu mu bon bon magee na ma du ma du ma étaler sax lu mu bon bon magee na ma benn juróom wala fukki at lu mu bon bon donc jiitu na ma ci àdduna ay at yu bari am na lu bari lu mu jàngat Sénégal am na lu bari lu mu xam te xam leen ne dañuy waxtaan te dañuy conseiller wante toujours saa yu ma defee lu dul naka il est le premier à m'appeler saa yu ma nekkee ci yoon il est le premier aussi à me féliciter donc comprendre leen ne que ñun diaspora bi ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay xam ngeen ko ak xamu ko ñun ñëpp dañuy waxtaan. comme ni ma leen ko waxee sama waxu démb mooy sama waxu tey xëy na yàgg naa nelaw ci Sénégal la ma yee ci Sénégal la ma yeewoon ba léegi loolu moo ma yee parce que dama dégg sama benn frère génn di xeex benn nit parce que loolu moo nekk ci Sénégal Assane Diouf est sorti muy xeex Macky Sall di xeex système bi donc man je suis sorti pour faire la même chose wallu sama frère xam nga lu Sénégalais yi wax ñu ne di wor na ko kay wor da ngeen di bokk dara da ngeen di bokk liggéey mu sàcc sa xaalis wala ngeen bokk ay ay affaire mu jël sa ay koppar dugal ci poosam loolu la ñu xamee wor ñun fi ñu dëkk wala ma takk jabaram wala ma sàcc ay doomam wala ma sàcc alalam loolu mooy wor waaye nit ka muy xeex nga koy xeex loolu ànd la tudd ci wolof man duma wolof de waaye defe naa loolu mooy ànd mooy nit ki li muy xeex loolu laay xeex li muy xeex ka muy xeex man kooku lay xeexal man kan lay xeex man ku may xeexal Ousmane man kan lay xeexal man kamay xeex kamay xeexal mooy ka Assane Diouf daan xeex di ko xeexal di xeex ak moom man kooku laa gëm man loolu laa gëm mais nit ñi li ñu mënul comprendre mooy man da ngeen di comprendre ne je suis un entrepreneur à moi-même du ma employé wu kenn mais comme par exemple tey Ousmane Dramé mii entrepreneur u boppam la he work for himself boppam lay liggéeyal mais li ci am mooy dafa gëm Sénégal ñun ñëpp ñu gëm Sénégal ñun ñëpp ñuy xeexal Sénégal ki may xeex kooku la Ousmane Dramé di xeex ki may xeex kooku la keneen di xeex mais ce qui veut dire que ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay naka la ñuy mën a jógee ñun ñëpp kii di dugg ci même supermarché bi man may jëndee ci même supermarché bi ma ne su ma lakkee supermarché bi dama lor nit ki mais loolu mooy réalité bi Macky sàll mooy problème mu Sénégal Macky sàll la Sénégalais yi bañ bu dee Assane Diouf i Sall lay xeex Ousmane Dramé Macky Sall lay xeex Ousmane Tounkara Macky lay xeex ce qui veut dire que Ousmane Dramé ak Ousmane Tounkara ak Alas Assane Diouf ñoo bokk intérêt comment donc doomu doomu yi loolu ngeen di dugal ci seen bopp bàyyi leen problème personnel yi ça c'est personnel ku la de xam nga tey dafa am réalité yoo xam ne Ousmane doomu sénégalais yi dañ ko war a def attention xam nga lu lu loo gis rek loo gis ci àdduna loo gis ci àdduna yàlla day indi ay misaal one million marche bu du loon misaal bu war a changer Sénégal kenn du ci wax bu doon lu ñàkk fayda bu doon lu tekkiwul dara la kenn du ci wax kenn du ci wax dafa dafa caravane yaa ngi ci dëkk bi caravane yaa ngi ci bi pour la première fois dans l'histoire du Sénégal li changer Sénégal jóge ci diaspora toujours dañ ko daan bàyyeewu waa dëkk bi ñii di kàcc ñii di naxaate ñii di saaga ñii di turiyande noonu la daan amee waaye bii yoon diaspora bi nga xam ne ci la alalu Sénégal bi di jóge di ñëw Sénégal ñooñu ñoo fépp ñu ne comme ñun ñooy jël suñu xaalis di ko yóbbu Sénégal dañuy ñëw dogal lii xew Sénégal loolu mooy dëgg ñun dañuy dem Sénégal changer Sénégal loolu la ñuy def. te doogu loolu. ñi ngi koy bay mbay mu rafet kër yi kër yi kër yi dem bu baax dëgg la kër yi ku ci feebar ntaa ñu la ba nga faju dëgg la njàngum école xale yi ñu ci def te état yi wóor na ko li ñu dugal ma ngi ci am tey buñ kontaanul buñ kontaanul état bi war na ko may chance déglu ñu ne waaw ñu ne waaw ñii ku ko déglu waaw ñii waaw ñii lan la waaye wut sa tànkaat ci taxaw wut sa yet taxaw ci koo xam ne mu leen dundal nga ne ko tey nga ne ko tey danaa leen dundal nii dafa naa askan bi bu ko seetaan déedéet déedéet duñ ko seetaan nañ bokk gore nañ bokk gore je parle avec la police dëgg la policier yi. policier yi. kenn respecté wu leen. boo xoolee li ma lay wax. dëgg la màggati policier yi président Collé. daañu xam daañu xam a may wax. bu ma saa ne gis a fa de police. Jean Collé gis ku dara. j'ai réformé les mentalités. maanaam ay nit la jël. wëlbati seen i muur. les discours beau le gens la Jean les les te ba la police la police. formation Vous avez les toujours. toujours benn continuer mais dogal na. Xalé nga xamné ñu dugg police muy les civilisations policiers problème problème de communication entre le peuple et la police nous avons une police d'État pas une police populaire une police militaire pour assurer mais police

nous les anciens commissaires de police les anciens commissaires de police communication tous les policiers

dañuy jàll ab sa son bi sa son bi yow. ah waaw son ah, sa son donc euh, waaw day répété loo donc euh, defe naa pour yow nga continuer son bi man nga maa may man ma wax nga xoolaat ko sa son bi. voilà donc euh, gars yi li ñu doon wax léegi da ngeen koy déglu ngeen dégloo ko xel au lieu da ngeen koy dégloo xol dafa am loo xam ne toujours comme ni ñu leen koy waxee. mbéjum kanam borom rek moo ko mën a fajal boppam ñun li ñu intéressé ci Sénégal soyez assez conscient et assez intelligent ngeen mën koo jugel seen bopp ñun dañu nekk ci suñu ay kër yor fi suñu ay njaboot bitim réew mënoon nañu fee toog tànkam lu leen Sénégal du ma fi toog sax di wax ay waxu teraanga wala ñàkk teraanga loolu du ci yegg mais ñun mënoon nañu xam li xew Sénégal dégg li xew Sénégal comme ni ko suñu maam yi daan defee comme ni ñu ko suñu yenn baay yi daan defee ñu bokk ci corruption bi toog ci suñu kër yi bañ a def dara mais on a refusé de le faire dañu bañ a toog di déglu wala bañ a toog di xaar pour Macky Sall jël Sénégal di ko partagé ci ay famille Timbo ay ak ay famille Macky euh, Faye Sall ñun yooyu taxuñoo jóg ñun li ñu tax a jóg mooy réalité yi nga xam ne moom moo xew Sénégal Sénégal dohul. Sénégal étude bi dohul. Sénégal tay bo xolé président bu génn Dakar ci ay moment d'élection mu ne Tamba Kounda lay dem pour inaugurer ay miru 180 120 km xam nga koku daf ñu yapp 120 km ci mur man man na ko tabax te duma ci xalaat nit waye président de la république mu ne mom day dem inaugurer ay miru 120 km day dem inaugurer ay autoroute yo xamne ay autoroute à péage digënté dëkk ak dëkk xam nga loolu foutaise passé wu ko mooy kaay leen xool li ma def ci dëkk bi lii maa ko ci def lële maa ko fi defoon loolu ay foutaise la parce que les Sénégalais savent ce qui se passe au Sénégal li ñu xam mooy Macky Sall jël na alalu Sénégal yëpp dénk ko Aliou Aliou Sall jël na geneen genn walla yëpp dénk ko ay doomam xool na ñi gën a corrompre ci àdduna bi ak ñi gën a ñaaw làmmiñ mu mu jël leen teg leen ci wetam pour ku ko ne tey benn mu ne la ñetti téeméer loolu doomu sénégalais yi dañ ko war a suur il y a des réalités génn leen nañu génn takk suñu ndigg jamaarloo ak Macky Sall ne ko fi nga bëgg a yóbbu Sénégal ñun bëgguñoo dem foofu Macky Sall ñun demuñu Matam ñun fan la ñuy dem Sénégal fépp la ñuy dem nous on est des Sénégalais qui habitent au Sénégal suñu ay parents dëkk fa te dëkkuñu Matam kese loolu mooy dëgg bi xam nga autoroute illa mataam boobu nga defar tudde ko autoroute Ila Touba waa Touba yi toog gëm la loolu problème waa Touba la ñun gëmuñu loolu ñun li gëm mooy xam nañ ne Macky Sall lépp lu mu def mi ngi koy def ci intérêt personnel on le connaît maki Sall xam nañ ne il est rancunier xam nañ ne xol wi baaxul xam nañ ne Macky Sall sénégalais yi taxuñu ko loolu mooy réalité boo xoolee noot gi Macky Sall di noot doomu sénégalais yi doomu sénégalais yi ba léegi ñuy toog di xalaat ñaari yoon laka la ñu war a defee Macky Sall man damay bëgg a xalaat ndax doomu sénégalais yi ñoo amul ndox ci seen bopp bi wala ñoo amul jom parce que nit nga toog nit di ñëw di la noot di la fen di la caaxaanee di la fontoo di la jaay doole di la def ay affaires nga toog rek di ko napp nappal di ko mus musal di bu mag sa suufu lal nee nañ la luy yoot ci ñaay bi la luy raam ci ñaay ba la jëm sénégalais yi wóogat leen saa mu ñuy ëpp doole balaa Macky Sall di ñu dépassé balaa Sénégal di yegg foo xam ne kenn mënatu koo delloo kenn mënatu koo defar nañ ko defar ba mu waree nañu bàyyi différence beeg par parloo bi lii du concours du concurrence loolu mooy dëgg lii du concours du concurrence lii du concours du concurrence comprendre leen loolu Ousmane Tounkara moomul wan million marche daf ko dem fekkee comme doomu sénégalais yi yëpp caravane yaa ngi daw ci biir Dakar est-ce que gis ngeen fa Ousmane Tounkara ci caravane yooyu ay doomu sénégalais ñooy génn di leen woo génn leen ñu dem ñu jàmmaarloo ak li nga xam ne moo nekk suñu nekk ku bëgg Macky Sall wala ku bëgg ku ku bañ Macky Sall di nga bokk ci wan million ku bëgg Assane Diouf di nga bokk ci xeex bi ku bëgg keneen di nga bokk ci xeex bi ku gëmul ku gëmul injustice di nga bokk ci xeex bi ku gëm Sénégal di nga bokk ci xeex bi mais nag sénégalais mooy la du ma dem doo dem loolu xalaat yooyu jël leen ko sànni leen fale ku demul Dakar bokk nga ci xeex bi xeex ku demul Dakar bokk nga ci boo ñu ñaanalee bokk nga ci xeex bi boo seetaanee live yi partagé ko bokk nga ci xeex bi boo ci waxee lu baax bokk nga ci xeex bi ku demul amul problème ñun ŋàññu ñu kenn toroxaluñu kenn tutal ñu kenn ñii de ñi jàppee seen bopp sama ennemi tay la gëna nek sen xarit man dama leen bëgg te yalla tax dama leen bëgg moi j'aime les sénégalais avec fierté man na ko wax test yépp jaarale ngeen ma ci man mënuma jall test yoyu parce que man sama xol bi xamul ki ñaan ki ñaan biñ koy defar fekkewuma wu mako motax ngeen gis nebbuma sama kanam gi mi ngi nii laqatuwuma ci ginaaw dara duma taal ay caméra nek ci ay lëndëm di wax wala di def dara maa ngi nii kanam ngaa ngi nii ce que vous voyez li américain di wax la what you see is what you get mooy maanaam li nga gis ni moom nga am xol bu set nga am ak doomu aadama bu normal man par par parloowuma wutuma place nee naa leen billahi wallahi Ousmane tey sama xarit nga maa ngi koy giñ ci yàlla maa ngi koy waatee yàlla joxoñ kaw asamaan bi waatee yàlla bu dee man damay wut nguur ci Sénégal yàlla na ma yàlla rey ci yoonu Sénégal bi may dem yàlla bu ma yàlla may ndam yàlla na ñu yàlla toroxal man wutuma dara Sénégal li may wut Sénégal mooy na sénégalais am jàmm man naa toog ci sama toolu bàyyi ba fële ci àll ba dégg na Sénégal am na prospérité Sénégal léegi vraiment mi ngi dox njàng mi baax na école bi baax na lépp baax na billahi wallahi tallahi ma janawaat ak sama borom ma ne alhamdulillahi rabbil alamin ñun loolu rek la ñuy xeex toog leen ko nag parce que nee nañu réseaux sociaux yi loo ci wax day feeñaat ëllëg suba xëy na yéen ñii xaar di ngeen dégg Ousmane Tounkara muy wut place wala muy wut président bu boobaa ngeen génn ngeen wax mais comme loolu amul na ñu génn jàkkaarloo ak Sénégal nañu bàyyi parparloo bi na ñu bàyyi kiñaan gi nañu bàyyi soxor gi soxore sa morom wàññiw la dara énergie bi dafa énergie bi sax li ngay temps bi ngay jël pour soxoree ko sa morom boo jëlee temps boobu nga liggéeyee ko billaay wallaay Sénégal dina avancé jël leen ñu liggéeyal Sénégal jël leen ñu liggéeyal Sénégal est-ce que tu Ousmane tu vas descendre sur le terrain mais pourquoi pas descendre sur le terrain je suis citoyen sénégalais et j'ai appelé aux Sénégalais de se mobiliser mais pourquoi pas man je suis là-bas on est tous là-bas ñun tous sénégalais Nous am cadeau. Cadeau, Gor, sa cadeau rek nga am gor amuloo sa li Ousmane Dramé wax xana ko ay papier à signer amuloon ay contrat yoo xam ne dañuy toog di ko signé di ko dajale déedéet góor day wax beneen góor bi wax ñu jàppante loxo a handshake ñu nuyoo loolu mooy kaddu bi frère ma delloo la kaddu gi nga nga nga continuer conscientiser parce que dajale moo la tax a jóg wax ñu wax. loolu la maanaam ab kamax boo xee alma boo wax ji wax ji weer

ndax ni ñu. ni ñu indilee alxuraan. jàngale wuñu ko noonu. chari bii ñu yàlla indi fee lañ ko teg. système bii ñuy doxale système la boo xam ne c'est satanique. ak système boo xam ne c'est faramasoŋ. loolu boo ko defee loolu boo ko defee ci bopp xale. kon fu mu am confusion. kenn ku ne ñaare kenn li ngay yëg ci sa bopp. li ngay yëg sa bopp. moom ngay seede keneen. moom te yàlla dogal na te yàlla dogal na nit ñi bokkuñu. li am solo daal li am solo daal mooy. le vingt neuf le vingt neuf. le vingt neuf c'est le début de le vingt neuf le vingt neuf. le national. le soulèvement national. un soulèvement exemplaire. un soulèvement. un xam naa ne ku ci njëkk a alkaati koy daaneel ñoo koy daaneel waaye nun suñu bopp nit du faatu ci loxo li bëgg daal mooy Macky Sall mu ër caabi oto bi te mënta dawal fi ñu jëm sori na du risqueeti suñu bakkan nan jox caabi ji ñu seet ku mën a dawal gannaaw ban waxtaane jox muy buy fi jëm le Sénégal a perdu de direction le Sénégal a perdu de sommet le Sénégal a perdu de loyauté Sénégal Sénégal dem na ba nga xam ne dem na ba nga xam ay fen ay fen mën nga cee dund mën nga cee dund ay fen ak ay fen ak ay tappale ay mën nga cee dund mën nga Sénégal dem na ba Sénégal dem dagan fa dagan xew moo tax la fa moo tax moo ko yor moo ko yor boo boo ko yoree noo ko yoree toppatoo wuñ ko toppatoo wuñ ko foofa diine jeex na te adduna bi loo loo fi def ëllëg suñu borom ëllëg suñu borom kon fi lañ war a kon fi lañ war a jóg loolu moom tool yaa ngi nii tool yaa ngi nii ñu jóg taxaw ñu jóg taxaw bàyyi fi liñ fi bàyyi fi liñ fi tey ñu fay ñu fi ñu fay ñu fi ñu fay ñu dem ca àjjana ñu dem ca àjjana ñu neexee tam waaye li xew ci réew waaye li xew ci réew mi kilifa du fen kilifa du fen du fen imaam imaam du mooy yàlla du mooy yàlla jigéen jigéen dafa amub sëy dafa amub sëy am ponkal am ponkal dem liggéey dem liggéey

am na xam-xam boo xam ne bu ko defee ci ñun daanu dépassé suñu nekk waaye boobu bu nekk fi ñu jóge mënuñu seen koy bañ mu nax la bu mu la jàngal sëriñ boobu bu soxla mu juutal Faatiha dem ter kon dafa jot kon dafa jot ñu la responsabilité seet na ñuy def seet na ñuy def boobu jotaat suñu bopp jubbantiwaat réew mi jubbantiwaat réew mi. assise xale yoo xam ne xale yoo xam ne. musuñoo takk musuñoo xale yoo xam ne xale yoo xam ne. xamuñu leen ci xamuñu xale yoo xam ne xale yoo xam ne. kenn xamu leen woon leen woon. immigré yi ci àll bi ci cadre universitaire yi ci àll niñ toll dama niñ toll kenn xamuñu doon. bu leen jaaxle bu leen jaaxle. Sénégal gépp bu leen génne woon. douze immigré douze immigré képp mën nañoo doxal réew te duñ ci soxla ñaari mel kon damaa bëgg a wóorul ni Sénégal toogee baaxul fi mu jaar du yoon yi kan bokk jóg kan bokk jóg dans la discipline le respect ñu laaj Macky Sall ci oto bi mënta dawal mënta dawal bu leen ko ne lii bu leen ko ne lii ñu ko lële da leen di sonal da leen di sonal kenn lu mu wax du ko def lu mu wax du ko def loola xam ngeen loola xam ngeen il a voué le il a voué le combien de fois la constitution parrainage bi mu jàpp parrainage bi mu jàpp ba dafa sonn ko teg li mu wax ci président li mu wax ci président est-ce que dëgg la est-ce que dëgg la rakkam yi mu noonu lépp mu sàcc alal mu sàcc alal Cayman Island lu ubbi ay société bàyyi grand yow kan moo doon meer ba kan bokk jóg kan bokk jóg lii am ndof lii am ndof la ndof ki nag ndof ki nag ko ko tubaab bi tubaab bi moo jiitu ci moo jiitu ci loolu yar mu yar ko xam ne ko xam ne lu soxla maam gaa gaa yaa ngi son bi ñu ka son ma ne gaa son bi ba waaw loolu la loolu la. boo wax ñu lay enregistré bi trop man yàgg naa ci waa police Dakar moom waa police Dakar moom ñu nañu enregistré te xam ne bu leen fàtte enregistré lii les policiers de Dakar ñu ngi ci yoon bii ñëw te bu ñëwé ñëwee li ñuy indi moy jamarlo ak Macky Sall te vous les policiers et les gendarmes de Dakar vous êtes aussi nos invités Yen tamit talal nañ leen loxo invité nañ leen Wo nañ leen ci li nga xamné mom la ñu ñëw def Sénégal pour jubbantiwaat réew mi Wo nañ leen ci li nga xamné mom mo nekk Sénégal di loubal sa alalu Sénégal bi parce que alalu Sénégal boobu ñuy loubal motax sen seen pays manqué Motax tax pays kat yi manqué Motax tax comme koomu réew mi manqué parce que Sénégal alal bi fa ne mën naa mën a yor doomu sénégalais yëpp alal bu fa ne mën naa créer ay emploi doomu sénégalais yëpp liggéey li ñu bëgg a xam dañu bëgg ngeen xam ne le le Sénégal est le Sénégal de tout le monde Sénégal ñëpp a ko moom. Sénégal maamu kenn sanc ko kenn manul taxaw fii tey mu ne la man la sama maam moom Sénégal Sénégal du royaume Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp dañ ci am wàll kii am na ci sàkket kii am na ci miir kii am na ci terrain kii am na ci ay liggéey li ñu am ba des mooy ñëw leen ñu xeex xeex bi ci terrain bi ñëw leen ñu ànd ñu jàppale li ñuy jooy génnee suñu frère Assane Diouf ci kaso bi xeex génnee suñu frère Khalifa Sall génnee suñu frère yeneen yi nekk ci biir kaso bi loolu mooy wax ji wax ji nekkul parparloo wax ji nekkul waxante lu ñaaw wax ji nekkul xeex ci suñu biir wax ji lan la doon moy ñu dem xeexal ka nga xam mo moo noot Sénégal. mais tay ku ku ku ku Khalifa Sall looy xeexal Ousmane Tounkara Ousmane Tounkara jàppul Khalifa Sall. ki jàpp Khalifa Sall Macky Sall la tudd ku bëgg Assane Diouf tey looy xeex ak Ousmane Tounkara Ousmane Tounkara jàpp Assane Diouf mais ki jàpp Assane Diouf Macky Sall la tudd donc lii réalité bi doomu sénégalais yi génn leen loolu mooy réalité kenn nekku fi wutum place wala politique wala ay caay-caay ñun yooyu taxuñoo jóg ñun li ñu tax a Amurut Senegal sincère moo nu tax jóg ku wér nit ku wér nga ànd ak sa sago nga xam Macky Sall li mu capable bu dee caaxaan moo la taxa jóg di nga takk sa ay bagages di jubali ci kooku te xam li mu defoon Assane Diouf ñun ragaluñu Macky Sall affaire bi du ñun affaire bi Sénégal la génn leen ñu jàppale Sénégal affaire bi du wax ju ñaaw sénégalais nee leen bu doon concours wax ci àdduna bi sénégalais moo ci jël premier xam ngeen loolu xam ngeen tey bu ñu laloon benn place grand place dans le monde entier ñu ne tey dañuy def concours wax sénégalais dina jël premier dina jël deuxième dina jël troisième les vingt cinq premiers les vingt cinq premiers seront des sénégalais mais dafa am réalité boo xam ne moom moo xew ci suñu dëkk mooy jëf bu ñu nee jëf on sera parmi les dix derniers parce que sénégalais du jëf man mii ngay waxal frère Ousmane amul lu ma dundul da ngay nekk ci ay groupe di waxtaan di def ay affaire lépp ay naxante yooyu baaxul Sénégal mënta dem Sénégal mënta ah, dem nañu bàyyi loolu ñu teg ko de côté bàyyi parparloo bi nañu bàyyi waxante lu ñaaw nañu bàyyi soxorante beeg iñaanante bi loolu yóbbuwul réew kanam li yóbbu réew kanam xool leen ki nga xam ne xam nga même ci société boo bëggee jubbanti société da ngay xool ki jiitu société moom ngay njëkk folli bu boobaa keneen koo indi dina changé jikko yi ci biir mais boo dàqee gobi bi ki nga xam ne amul benn njariñ ci société bi boo ko dàqee léegi société boobu nu muy changé société boobu lu mënul changé mais il faut ngeen xam ne que société li koy changé ci kaw lay commencé new ma kenn na ma baal par exemple ci ay deful lu bon déedéet kenn bu mu suturaal kenn ci def jëf ju bon jëf ju bon warul ci suñu société bi boo leen gisee Ousmane Tounkara di def lu bon ŋàññ leen ko ngeen génnee ko ci biti loolu mooy dëgg boo leen gisee Ousmane di wax lu bon woo leen ko ngeen wax ak moom loolu mooy dëgg mais lii dëgg comprendre leen ne que Ousmane Dramé nii di xeex nii tey Macky Sall lay xeex xam nga man mënoon naa fee toog ma ne mais Ousmane Dramé lu moy liggéey kan mooy jabaram kan mooy doomam ah fu muy jëlee xaalisam mais loolu man lu ci sama yoon. man xam naa ne Ousmane Dramé ki muy xeex man kooku la amal problème mi ngi mel ni Ousmane Tounkara mu toog ne damay ñëw xool Assane Diouf li muy Amérique ak lan lay def ak kan mooy jabaram ak kuy doomam mais lijjantiwu ma loolu xam nga man lan laa lijjanti c'est un citoyen sénégalais te li muy wax yenu na maanaa déglu naa ko dëgg rek lay wax li muy wax yenu na maanaa yenu na maanaa donc doomu sénégalais yi jóg leen ñu ànd ci loolu. Ousmane jóg leen ci dëgg. voilà Ousmane maa ngi lay déglu. rappelé rappelé voilà euh, date bi la vingt neuf la. incha allah place de l'obélisque euh, heure bi quinze heures lay de l' après midi li taxoon ngeen di gis ñuy ne neuf ci suba c' est parce que. dañu doon dugal permis di top régulation top di top maanaam li nga xam loolu la doomu place de l'obélix le 29, neuf muy heure bi quinze heures léegi ñu ciy woo doomu sénégalais yépp pour ñëw ñëpp ñëw ci ñu dajaloo ñu xeex li nga xam ne moom injuste Sénégal comme li ma leen wax bu leen yërndu di ngeen ma gis jarul yërndu di ngeen nañ fa fekkante ñun dinañu marche yéen ñi bëgg gëm ndax waa ji li muy wax gëm na koom déet ñëw leen keroog bu ci yàlla àndee bu avion yi daanuwul bu tali yi tasaarawul di ngeen ma fa gis bu soobee yàlla ak yonente bi maa ngi leen di gërëm nag di leen sant frère comme ni ma koy defee ak yow toujours vraiment maa ngi lu sa taxawaay xam nga wax naa la am na lu ma la wax démb secrètement dama la woo parce que yenn saay bu ma la dégloo lu bari laa lay wax de dama lay déglu lu bari day tooyal sama xol man tey man sax xam nga man ba léegi mën nañoo ne il a quarante cinq ans il encore très jeune donc moom am na ba léegi espoir yu bari ci Sénégal mais yow tey ak fi nga fi ñu toll ak sa âge fi mu toll ak yow yaa yaa ngi bëgg a sax sa liggéeyu bopp nga dem ba léegi nga bañ nga nekk mag bu bu nga nekk magu bañkat bëgga sa réew di xeexal sa réew ma xam rek ne que yow sa réew moo la ñor. yow sa réew rek moo la ñor vraiment ñu ngi lay remercier frère maa ngi lay remercier de tout cœur te dina doomu Sénégal yi ñu ngi baluwaat ak comme ni ma leen ko waxee comme ni ñu koy waxee rek ñu taaw maam yu njëkk yi comme ci yoon ci la ne bëgg a dem Sénégal ñu ngi leen di jéggal ku ma tooñ voilà jërëjëf. Idriss bul dem de dinaa ñu coow Idriss dem baal ay compte dugg mi ngi ñëw de sa ñas mi ngi ñëw de mi ngi ñëw mi ngi ñëw mais dafa xaw a yéex waaw yaay jëm naa la ñuyu monsieur Idriss icône bi duggul de ñëwul mais dana la essayewaat icône sa ñas def naa essaye de maa ngi essayewaat rek je vais essayer encore affaire bi noonu la rek góorgóorlu ak muñ rek góorgóorlu ak muñ góorgóorlu ak muñ le Sénégal nous appartient réew mi nag am nañ droit wax ci duñ xanaa ñoom war nañoo gore ñun dañoo daw bay li nag réew mi booba nit ci àll bi taxawaalu ah mais xanaa war nañu may nag benn fan nu dajaloo ah war a waxtaan liñ naqari ñu wax ko ah te marché bii bokkul yi doon am de bokkul de li fi doon am bokkul ak marché bii de ki beneen modèle moom beneen façon marché la lii c'est l'ouverture d'une révolution lii li ñuy def nii bu leen ko xeeb de Serigne Touba wax luy luy sorti buy door du niroog dara giso boy dessiné ab bâtiment du niru dara waye bu sorti nga am kër gu bax liñu def ni ci xam-xam bu wër lañ ko tek dama na ma lambat ay pan-pan dana ñëw affaire dafa dafay du dugg ko damay balin ma damay essayer pour duggal sëñ Niass ba xam sëñ Niass Pastef mom lay bëgg duggal moom waa Pastef la quoi Mon la bëggoon mu dugg ñom ñëpp ñoy japp ci le réveil des consciences le réveil des consciences xalé yu bax xalé yu bax yo xamné xam-xam wër lañ ñu am nag waxuma làmbatu de xalé yu wër ñoo may assister may liggéey liggéey bi té amna yaakaar ne gis naa ci njariñ bu baaxa baax Idriss jël na la jéem jot légui may ñewul mais je vais essayer encore une autre fois something wrong something wrong Euh, demul quoi demul kon daal euh, le vingt huit la soobee yàlla so le vingt neuf la vingt neuf ñun ñëpp nañ bokk daje euh, xam ne nag Sénégal képp mënu yëkkati waaw Macky Sall kenn ku ne xam ne ne moom ci boppam sa wóor na ko ne mënta dawal oto bi mënu ko comme mënu ko nag gone nga jox ko ay kaas mu gaari koy tarañtal yi mën naa toj lépp waaw ci njekk ak teraanga képp lañ koy ñaan waaw forcé wuñ leen itam moom dañ koy dimbali dimbali gi mooy mënta dem te bu këppoog oto bi waxuma la mu bakkan waaye nit bu daanu dem noonu ko nag indi caabi ji nu set te sax li gënoon a wér mooy yéen Sénégal war ngeen di bàyyi nag immigré yi ñam ndax booba ba naga ni gouvernement yëpp waa Sénégal yéen képp yeneen ni ci biir di jëf kon war ngeen noo may nag bi yoon nun les immigrés ñu essayé ànd ko ak yéen am nañ fi cadre yoo xam saf sàpp lañ def ñu bàyyi leen ñu def na un projet politique limité ministres yi quinze ministre doon na quinze doy na te sax bu boobaa mën naa ñu bañ a def ay yu ñàkk xorom yi mën nañoo def sax ay ay ay ay province province yoo xam ne province du Bawol province du Kayoor province du Sine ay province yooyu mooy dugg ci yaramu nit province du Bawol bu taxawee pàkku làmbaay jël seen i dénk ñoom ku bëggul dénk da ngeen laam làmbaay jënd ko fa benn décret mënta jàll te gouverneur yi ànduñu ci loolu moo am solo waaye jox lépp Macky Sall mun ne ca signé ca tool yi nekk ca Ndoukoumane di fa signé di signé tool yi ca Kajoor ak Njàmbur dama ne kan jóg ci suñu bopp ay magi jëmm lañ ay nit lañ ca Sénégal noo ko moom comme tous les autres Sénégalais kan boo am fulla li nga xam ne mu am Sénégal mu une culture féodaliste di féodalisme benn culture maraboutique benn culture pouvoiriste boo xam ne kenn ku nekk aj say mbagg ne mana mana te duñ gis nga ngàbb dara duñ gis nga tabax dara duñ gis nga jubbanti dara wax rek te li ngay wax lépp ci sa maam wala sa bàyyi koy sukkandikoo doon wax lenn loo xam ne lu suñu borom la kan bokk jóg nag naxa yi dafa doy sëkk kan bokk jóg état bii du état dara bu fekkonte ne Sénégal jaar na ci yoon tam jaar ci yoon ngeen ni seen gilit wóor na wóor na da ngeen ñeme charia mais ku tudd mu raw parce que dañuy jubadi ku jubadi du ñeme charia kaay leen Sénégal ñu dawal charia quatre-vingt-seize pour cent de musulmans Sobawa Sobawa mooy usine bi sangara si usine yëpp a perte yëpp a perte man de Sobawa Sobawa mosut a perte ku ma sa dégg ñu ne Sobawa perte na usine bi sangara Sénégal mosut a perte usine yëpp a tëj ba mu des moom. ba mu commencé ba ndëgën ni depuis le début de l' indépendance jusqu' jour nos jours Soba mu sa perte soo ko sim sax perte na ñu jàppale ko mu jógaat ku ma sa fen fenn ñu ne les brasseries perte na doo ko dégg fenn moo tax ñu ragal charia